ñu bàyyi ci xel bu dara dox sa diggante ak sa borom saa yu xëyee na sa mbir nekk ci li ma weesu nan la mel ndax bi ma xëyeeg léegi def naa fi bàkkaar sama diggante ak sama borom nga nafar sa bopp bi nga cëppeelee sa tànk ba bi ngay tëdd nga xool ba jant bi so bàkkaar boo fa yëg ne def nga ko nga jóg tuubal ko yàlla def ci ñaari rakk jéggalu ko te yéene ne dootoo ko defal bu boobu jàllee nga xool sa diggante ak sa mbokk jullit yi ndax lor naa fi ab jullit bi ma xëyee ba jant bi so wala ndax lor naa fi ab doomu aadama ci sama làmmiñ ci sama loxo ci sama cër yépp wala ci samay moye ndax lor naa ci doomu aadama nga xool ba mu daj soo yëgee ne am na koo ca lor solal sa dàll solal sa dàll kooku du ku nuy jullil ñaari rakk nga jéggulu ko mu jégal la nga delluwaat nag yàlla nee na ab doomu aadama bu bu xam li xew te yëg ne àllaaxira muy dëgg heure bu xëyee ci li lay nekk waaye yow heure boo xëyee yaa ngi ci deru nit ñi yaa ngi ci fexeel nit ñi yaa ngi ci ay pexe suuba ba jant bi so fàtte ne mën nga dox ba daanu ci sa bàmmeel yow gis nañu nit ku dox ba yàgg rek na këpp daanu ñu yëkkati suuli ci yan pexe la ne woon yàlla rek a xam ndax doomu aadama mën naa dëkkee xalaat lii ba pare fu mu toll di mooy yàlla mbaa fu mu toll di lor jaamub yàlla ci làmmiñam mbaa ci loxo mbaa lenn ci ay cëram sa parce fàtte na yàlla fàtte na boppam loolu nag yàlla ñu ci yàlla musal defal ñu tawfiix ak taysiir su ko defee àddina du kër ñu bàyyi ci xel